leen dang laay laaj leen dong laay laaj Pawlish lan moo tax nit ñi di la interviewé nga tëdd sol sa mbaxane di wax nànk mel ni yow Pawlish mais Pawlish yow mais Pawlish yow mais c'est quoi ton problème yow. parce que Abba ku ñàkkoon moo am man damaa ñàkkoon su ma commencé di sangu piscine am xaalis euh, journaliste ñoom heure bi ñu ñëw dañuy jënd courant sama pour def interview. lan. amul benn télé buy ñëw sama kër journaliste tey jënduñu courant pour defar ma interview dañ may saraxu war a Abba xew rek am solo xam naa ne journaliste gëj na kër Aliou Mbaye kër Fallou Dieng ak kër Abdou Ndour ak ak kër. solo Ousseyn. jour boo dee dinaa jëyoo sonn. boo dee dinaa jëyoo sonn Ousseyn. ñu nii Samy. aywa. aywa eh. eh, eh, boo dee xam fu ma jëm. Ousseyn bul dee de Ousseyn bul dee de. wow wow wow wow wow waroo dee de wow. Eh, mais ne ko sëñ baax ci yow. bi ngay dugg mel ni ginaar génn di mel ni gaynde sëñ baax ci yow. wow wow wow wow Ousseyn bul dee waaye sama xet baa ngi dee waay. wow wow wow. waaye sama xet baa ngi dee